waaw allo allo suma mbokki gambien si suma am di jàmm yi ñi ma déglu ci réew mi ak ñi ma déglu ci bitim réew man la Samsudeen Sarr ma di àllarba di jaar fukki fan ak ñetta ci weeri June 2021 ah, ni ma ko dee defee rek tey programme bi ma ngi ko jubale ci ay fànna yu bari nag loolu doo bugguma koo guddal naa def koo gàttalee waaye first of all balaa sorry, sori dama bugg a def benn correction démb maa ngi wax affaire yi kii si um, Troy Anthony Davis bi ñu rey lethal injection in 2011 la 24 September 2011 you know I made this mistake maa ngi wax 20 September 2021 21st September la 2011 lañ rey Troy. Anthony Davis koo xam ne prosecution mel ni ñoo maasi Essa Faal gi ñoo ñoo sosal ko sos bu métti moo rey benn polisi tubaab indi ay witness ay seede yoo xam ne dañ leen wax nax leen wax leen you know mooy ñenn ñi dañ jël ñoo xam ne sax duñoo ñor du duñoo àndaa seen sago ay duñoo àndaa ba pare dañ dee ñàkk jox leen yéen ay wécciti xaalis mbaa yéenay drogue di la si ñoo jël sa indi leen wax leen ne yéen gis ngeen bii di am pour ñu tëj nit ki mbaa ñu rey nit ki um, just like su leen gisee ni ñoo def ci kees yi Yankuba Touré bi jël ñoom Kaañi mbaa kees yi ñoom Aya Jammeh bi jël ñoom Malick Jaata ñoom Koya di leen wax loo yoo xam ne soo dégloo sax di nga xam ne ñii li ñoo wax amuñ any evidence pour wane ne liñ def. dañ leen def defloo dañ ko def te noonu lañ ko defee te ki leen ko wax moo moo def so um, moom laa doon jéem a explain nag so I was making this mistake of saying ne twenty first sorry twentieth septembre la twenty twenty one waaye am nañu close ma attention to it rek ma ne leen waaw in fact so leen ko google woon di ngeen gis ne di di di exact date di ngeen ko gis waaye um, loolu moom gaaf la rek um, so maa ngi leen a baalu ci loolu. waaye dem ñoo gi yëpp li ma ci doon dégalaat rek mooy ne lawyers saasaay saay lañ suñ taxawee pour yaa am na lawyers su bari laa laa wax sax li ëpp ci lawyers yu bari suñ taxawee pour win seen case gisuñ yàlla gisuñ yónnante bi gisuñ bokka gisuñ dara win seen case la ak seen dara si biñ leen a fay rek mooy maa si ñoom Essa Faal gi ñoom ba tàmbeedu waaw jël fen yu tooy xepp toon ko ne di nga ko def dëgga in fact dëgëral naa leen waxi affaire kii bi naka um, ba Touré loolu moom dama ko continue di ko wax duma ko bàyyi mukk jël nit ku ñoradi ku mel ni kaañi alaaji kaañi ni ko ñëwal wax ne yow yaa yow yaa Edward Singhateh Peter Singhateh Sana kii um, um, Yankuba Touré yana rey Koro Cissé you know and uh, ngeen ne di ngeen ko tëj ci loolu mbaa di ngeen ko ci mbugal te ñëpp dañ Gambie bi yëpp xam nañ ne soo leen waree mbugal ba tuure ci waxi kaañi boobu ne moom moo ko rey moom moo Edward Singate ak Peter Singate ñetta ñooñu waru leen a bàyyi gannaaw da ngeen leen ci war a boole. waaye lii du affaire lu waa Gambia lii doole yi Bantambédou la ñoom Essa Faal ak commission of inquiry bi nga xam ne amuñ doole loi ñoo jàppat Yankuba Touré di ko néewal doole soo loolu dama ne naa dëgëral la ne loolu dafay yàgg ci àdduna si you know ñëpp ñëpp ñëpp waxoon nañ ne Troy Anthony Davis tuumaal biñ ko tuumaal defu ko. juróom ñeneenti seede yiñ indi woon ñëpp wax ne ñoom gis nañ biñ ko lifin balaañ ko rey juróom ñaari yëpp ñëw nañ ne def ko ñoom dañ leen waxloo rek ñaar ñi ci des lañ jàppa ñoo ci ci ñooñu lañ jàppa prosecution bi ni foog ñu rey foog ñu rey benn rey waa ji biñ ko reyee lañ xam ne sax ñaar ñooñu sax ñoom itam dañ doon fen loolu mun na xari te loolu du benn du du benn yoon la Amérique def loolu nit de prosecution du benn yoon lañ ko def sukkandiku ci luwaa bi rek ñoo la gën a xam luwaa ba rey nit maa ba tëj nit koo xam ne waruñ koo tëj ay ati ati at ñeneen ñi dañ leen di tëj am na ku ñu génne woon bu yàggul boo xam ne 17 years lañ ko ba mu amee 17 years lañ ko tëj dem na be am almost 60 years ci jéel bi ci lañ soog a xam ne lañ ko tëjee du yoon ñu soog leen a génne ñeneen ñi dañ leen a wax ne leen a rey last minute ñuy dem def DNA sax time boobu DNA xam nga amul li ma leen a wax DNA ñëw test DNA léegi ñu gis ne sax ñu wax ne moo defoon ñaawteef gii du moom ñu bàyyi la te ñoo xam ne dañ leen waroon a xam nga ñaata nit la ad Amérique rey ci nit ñoo xam ne looyas ya leen a dugalal ci rek sasal leen rek ne ñi ñoo def lii te defuñ ko ñu ñu ñu rey leen ñaawteef gi nekk ci àdduna si li ci ëpp yëpp looyas yi. ñaawteef fii looya si dee def ci àdduna si soldaar yi ñoo def kenn wàllaam ndig bon ndig saasaay di sutu nuru nit ñu baax fekk nit ñu bon lañ seen xol yu bon dara baaxul ci seen xol yi seen bugga bugga rek lañ gis seen am-am rek lañ gis mun nañoo taal àdduna si ci ci ci fen yu rëy mel ne Rudy Giuliani gis loo Rudy Giuliani eh, looya um, uh, kii bi um, Donald Trump bi. ñëw taxaw rek ne you know di fen rek ne dañ sàcca élection bi ci ci ci um, Donald Trump jaxase america ba Amérique tuuti ñu xeex over loolu on the six uprising boobu you know ñoom Rudy Jello yaa ñoo ñooñu ñoo gannaaw yàlla ñoo ñoo pus noonu fen yu rëy rek you know jaxase àdduna si ñoom loolu dafa nekk ci seen deret yi soo man loolu dama ko doon dama ko doon dëgëral ba pare yéen seetlu ngeen ne ndeysaan démba la sax ne dafa am ku ma call suma attention ne ma Sarr riin nga standard newspaper ma ne ko non mu ne ma demal seet mu ne ma yaa ngi fàttaleku TRRC bi minista MC Cham ba mu ñëwee di wax ne dañ jàppoon Sirif Diba NIA e, dóor ko ba dama loxoom bi because moom sel ba mu nekkoon mu doon dégg dóor yi ba pam génnee dama dañ loxoom bi ba loolu mu ñu moo rey Sheriff Diba xam nga kooku dafa bokkoon ci liste bi Essa Faal bind ne ñii dañ ko war a yóbbu la xéeg ne Yaya Jammeh la léegi mbokki Sheriff di bay ñu ne ñoo génn riit na pipa ñu la MC Cham doon wax yëpp dafa fen kenn dóorut kenn dóorut Sheriff ba kenn bugalu ko te bi mu génnee amul dara lu scratch ci yaramam bi ba pare bi mu génnee merut because dañ dem cek ko gis ne liñ ko doon tuumaal du dëgg ñu bàyyi ko mu ñibbisi ñu ne loolu moo rey Sheriff Dibba soo gis nga loolu yëpp tuumaal la te mu nga bokk ca listi listi Essa Faal bi so you know lawyers nii lañ mel général Tamba kool nañ ko fi ku nekk ñu indi waaw général Tamba dañ ko dóora dóora dóor mu ñëw mu ne man kenn dóoruma kenn dóoruma ñu mere ko cee mere mere mere mere be moo tax ñi gouvernement bi bugguñoo jox ñi sax liggéeyati ñoom général Tamba ñoom général Savage ñoom général Sow ñoom général um, Aimé Ba ñooñu yëpp soo gisee ñu aaye leen liggéey ci système bi mooy ñi capture dëkk bi di wax naan ñii ay nit ñu bon leen ñii niti Yaya Jammeh lañ woon ñii niti lel te ñoom ñoo fi gënoon naa nekk niti Yaya Jammeh te dinaa ko continuer di wax ku gënoon na nekk nit Yaya Jammeh Essa Faal amut indi Gambia coow li moo coow nii yëpp waaw même ba kër yi naan waaw man dama one year rek laa def ma dem study ji government study government scholarship la am dem study ji ñëw ñu def ko draft mu nekk ci ministry of uh, ministry of uh, justice. di liggéeyal Yaya Jammeh commission yi génnee ko fa junior council la woon ñu génnee ci ko di ko jox liggéey yu mag a mag a mag ko fi yóbbu ko United Nations mu nekk United Nations ba dugg ci international community bi di lijjanti trou Yaya Jammeh ñuy am appointments pour Gambien si ñuy leen a yóbbu different maa wax Gambien lawyer si ah, ak jooji si nga gis ni yëpp ci ron Yaya Jammeh ñim gën dimbale ñoo ko gën bañ ba pare léegi di fen-fen yu tooy xepp naan kilee ku bon ka kilee ku bon ka te ñooñu dañ doon def seen liggéey rek général yi yow ma jox liggéey général man ma nekk military saa saay ñëw dina taal dëkk bi ma duma ko def kon what are you talking about it's just like nga am sa case dem court ne duma ko defen ñu jox la case nga dem court ne bu duma ko defen parce que àndu ta yoon waa su ko defee lii that's it soo ma joxee military responsibility ne ma lii sa responsibility la loolu la military responsibility lan lañ laa jàngal na nga defendee ni nga faytee ni nga reyee ak defend sa boppa loolu la soo ñëwee pour ne da ngaa yaaxal luwaa da ngaa yaaxal réew bi soldat bi war na dafa war a jóg kenn waru koo wax sax demal dafa war a jóg rek dem toppatoo ne xam ne liggéey liggéey la liggéeyam la waaye ngeen ne loolu du fi am you know jàppa twist story rek jàppa story di ko twist rek an loolu mooy toc réew li ma leen naa wax rek because Essa Faal fi mu fi ñu bugg a yóbbu ci affaire yi bi du dem ak ñoom commission yi nga gis nii ak so-called ak sokol called human rights xamuñ dara dara dara rek la ñoo wut xaalis rek rek rek rek rek la ñoo wut yëf naka la tuddaati tu indi nañ witness yi ku ñu mel ni xaw ma tuufa jaalo mu ne yaaya jaame daf ko ñi xam diggante Yaya Jammeh ak Toufa Diallo ñu ne ci ndóol la ko Yaya Jammeh génnee famille bi génnee leen luñ lekk sax duñ ko daan am luñ fu tëlem lañ dëkkoon fu ñàkka Yaya Jammeh ñëw fonisal leen ko defaral leen ko yërëm leen you know bañ koo ñëwee di ko fonisal di ko waxuloo yu baax yi mu ko defaral yu baax yi mu ko defaral yëpp xam naa ne sa Yaya Jammeh dafa dem ba ca digg sax xam ne ñi nit ñu bon lañ mu jox ko gannaaw mu ne xaaral ma dem claim ne daf ma réeb fekk yow dox nga sa àdduna be tas yaa jaame def ko dara parce que Landing Sanyang driver bi mu doon wax ne moom moo ko dëkk nay bi ko Yaya Jammeh di réeb dem na ci TRRC bi dégg na wan leen ne li tuufa ba yàlla doon wax yëpp du dëgg leeral leen ko yëpp you know li ñuy looy exculpatory evidence exculpatory evidence nga indi évidence boo xam ne soo ko su ko nit ñi ne just dégg ko dinañ xam ne la nga indi woon yëpp dañoo fen landing saan saañang bi dégg naa dem na foofu moo wan leen ko gaa yi ne gaa yi ne ko waaw dinañ la kool ba tey kooluñ ko so yooyu nag évidence yooyu moom laa laa wax ne te criminal code yi ñoo wax ne criminal code yi benn benn doubt soo amee loo xam ne dafa dafa dafa óorut óorul ci wax gi nga wax rek yàq na yëpp soo yow soo ne gaa yóbbu yaaya jaame crime against humanity ak yooyu ba pare naan dafa réeb dafa def lii dafa def lale évidence yi da nga foog ne lawyer bi represent yaaya jaame kooku du war a ñëw ci dëkk bi xam ne da ngeen a waste time am waste time yi dëkk bi waste xaalis si dëkk bi pour ut ci tur just like the case in Laurent Gbagbo 10 years you waste time in the ñi And rey nañ ñetta junne nit rey kenn léegi bàyyi nañ ko ñibbi na free façon yooyu ngeen indi waat ci dëkk bi ba pare di leen def di def lu leen neex loolu di def lu leen neex jël dëgg bi di ko gis fii ne di ngeen ko def fen jël fen da ngeen di ngeen ko def yéen a ngi nii affaire ah, ah, na Jaata mu ngi nii everyday léegi mu ngi gën a am doole wax gaa ngi gën a am doole affaire na Jaata bu njëkk ba nit ñi ñeme ñuñ koo wax sax ba mu xapu ne dañ ne waaw dañ ñëwoon yóbbu ay jaaseek ay boan aro traditional weapon pour xeexa sénégalais yi ñu rey leen te loolu yëpp gis nañ ne fen la ñooñu dañ doon wax ne sénégalais yi ñëw toog sénégalais soldats ya nekk fële naka foo ñi boori kanen laay ñu ngi jël seen xar yeeg seen nakk yi di ko rey di ko lekka ba pare kenn ñeme ñu koo wax ci dëkk bi ñooñu seen présence ci dëkk bi sax National Assembly bi dañ waroon naa toog ni ñii la leen fi indi of course Adama Barrow moo leen fi indi waaye Adama Barrow dafa waroon naa indi ci nasonal Assembly bi ñuy wax lanay seen mandate ci dëkk bi ñu def ko téere waaye loolu yëpp kenn bëgg koo wax loolu la ñoom na jaata doon jéema démonstrer pour wane ne lii du loi lii du du dëgg ñu rey ko tiire ko bar rey ko kooku ngeen ne kenn du ko wax waaw kii sax Fati Fati may Fati mi waxoon saa ne traditionnel yow génn na ci ba set wecc ne moom loolu yëfi Adama Baro la soo Adama Baro yow daf la óor ne bés bu la gaa yi saa saa yi génnee ci dëkk bi yëfi jaata Diatta dinañ la ci jàpp soo su ma doon yow léegi nga jóg ñu toppatoo loolu seet la nag ko ña ko rey suñ leen a compensé nañ compensé te euh, gars yi farabaay noonu ngeen war a compensé te na jaata famille njobootam ngaa fa ñu sew kenn yorewu leen fi mu nekk fi ñoo lekkee kenn xamul ko te te rey ngeen seen papa yooyu yooyu moom these are things yoo xam ne kenn du mun a gis dëgg ngi ngeen a jël over fifty three million si ne jox ko looya yu Strand yi ne leen dem leen prosecute affaire yi solo sande nga xam ne kooku du Gambian wan number two dañ ko fay xaalis ne ko demal taal réew mi mu dee ci fifty three million dalasi ngeen jox ko ñi pour ñu dem def fi nonsense yooyu léegi ngeen ne Harouna Jatta mi nga xam ne fii la juddoo fii la yeroo am njabootam ñu rey ko in cole blood ngeen kenn du ko wax kenn du wax sax kenn du ko jox bu rëy xam nga loolu dafaa ñaawal dëkk loolu dafa ñu ne du seen mandate waaw fi Harouna Jatta du suñ mandate da ngeen ñu waxoon fii ne Farafenni attaque bi du seen mandate waaye ba ngeen buggee taxal Samsudeen Sarr ci ngeen ñu indil Mballo Kanté ne waxaat ne Samsudeen Sarr la kii ba nga reyee juróom soldaar ba pare ba Essa Faal ba mu waxee na moo doon reyee soldaar yi daal guddi Essa Faal di reyee mel ni ku yàlla maata bugg koo wax sax ne juróom soldaar rey ngeen ko mais biñ ko bindee ci la ko wax nañ jox ko ñaari tur ne ko waa ñaari yi da ngeen leen rey mu ne ñoom reyuñ ko mu fàtte ko bugaatutaa wax loolu waaw yooyu yëpp pour wax gu yëf gu ñaaw rek li fi ni three years jot na démonstration boobu du affaire yi du du mandati du mandati TRRC bi waaye bi Yankuba Sonko ñëwee as interior minister di explain yu yu doon xaw ci dëkk bi ba day wax ji rafet ci yaaya jaame ne yaaya jaame bonu toon dañ ko daan nax di ko mislead te ñëpp xam nañ loolu ci moom nit ñu bon ñee ko dee man mislead nañ ko ci suma kan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu mer loolu naan ba <clears throat> Yankuba Touré ba Sonko yéen li ngeen def affaire tri three years jot na bi sax di door nit ñi bi ñoo démonstré loolu ànduta yoon soo loo bëggoon da nga bëggoon ñoom ba Sonko nga xam ne ñoom lañ dénka pour affaire sécurité dëkk bi ñu bàyyi yëfi triyees jot na ñu taal réew mi daaneel Adama Barrow yes loolu nga waroon naa def loolu nga bëggoon waaye yow da nga yeb Adama Barrow that's not the first time toog di wax naan dëkk bi eh, président dafa war a jàng ah Yaya Jammeh jàngu Adama Barrow jàngu Yaya ba pare Adama Barrow toog di leen seetaan ñëw nga fii naan indi fi benn saa baaboy saa saay ji naan ko. time is solo sandeng demonstration bi you know dañ euh, Adama Barrow dafa daw dugg ci ronlal ñoom ñoo taxaw di di di di jéngu euh, police yi waaye Adama Barrow dafa ngay cox cox cox cox cox mel ni ku yàlla maataate te loolu du sa mandate soo dama wane rek ne Essa Faal waaye ñëpp xam nañ léegi Essa Faal lum jublu woon ci TRRC bi am kii ñëwutoon pour ne dama ut dëgga Gambie wi juboo leen niñ waxoon ñu xam dëgg gi ñëpp juboo nekk benn non Essa Faal dafa ñëwoon pour nekk politicien foog na su jaaree ci TRRC bi politique sam dina taxaw mu taxaw nañ saadal ko mu nekk président Gambie bi na taaka xam naa ne Essa Faal ku ko def président ci dëkk bi foog naa ne xaw ma kenn de waaye 90 percent of nit ñu ñor ñi ci dëkk bi iida di nga génn dëkk bi mbaa mu rey la parce que nit koo xam ne la su jàppee su matee dafa dog te dafa soxor du yërëm maa ngi gis ba you know euh, ba pare xamul li moo wax sax dafa daf daf ñoradi <coughs> ak li moo wax ni yëpp mu nga xam nga ñëpp xam nañ ne daf doon behave like ahmadia Karim Khan bi mu ñëwee toog Ahmadiyya invite ko moom moom ñoo toogoon ca high table ba mu naan Karim Khan a ko invite yaa ngi ci TRRC bi oo ñoom ki imam Fati di leen xas di leen tànca naan leen affaire yi Ahmadiyya yi léegi mu ngi bugg a nekk élection xam na ne. loolu su poussé agenda boobu ñu bari duñ ko ci support because xamul ne Gambien yu bari yëfi Ahmadiyya safu leen you know waaye déedéet mu ñëw nag dofaayam gi mu toog naan waaw moom naka def tuuti moom musta nekk Ahmadiyya moom musta nekk Ahmadi moom pure islam pure islam la was eh, ci ci pure la nekk. mooy islam bu déggu la nekk mel ni ahmadiya kon yow da nga saaga ahmadiya yi sax ne leen ci luñ nekk du déggu du dégg te loolu la ñoom imam Fatih day wax ne lii ahmadiya day wax du dégg seen religion bi du dégg léegi nga ne nekkuloo ahmadiya yow ci ahmad ci islam bu déggu nga nekk soo yow xamuloo sax ne yow ñi doon saage li ñu doon wax kii ñoom imam Fatih ne leen ñu nasaxal di wax lu ñaaw ci affaire yi Ahmadiyya yow wax nga lu ko raw te yow nga ne da nga jàng ba yey kee foofu la ñora di am ak yeneen ak yeneen Essa Faal sooy toppa nonsense yi mu def billahi di nga xam ne kii kii ki kii you know dafa dof oh yes every time soo ko gisee nga gis something worse in what he is doing you so man man man daal affaire bi ni ma ko gisee daal mooy ne ñun dañ am et big big big problème ci suñ loxo loo xam ne suñ ko toppatoo ñun ñëpp dinañ toog ba dinañ ko regret waaw because you know like ñu ñëw ci affaire yi li ma doon wax rek age 22 bi bu ñu bëggoon naa change tàngoot ne. loolu ñu ne government stop na ko waaye government sa tey man benn tey dama leen mere ah waroon naa ñu wax press release ci lu rëy lu em noonu because benn nit ñi gobuñ sax de government benn nit ñi góobuñ ne government dañ bañ ne yi fi aaj 22 bi ñëw change on the 28 du am parce que lii ñoom Essa Fall la ñoom TRRC beeg saa saa yi ñoom ay ñoom loo ñu ne mayor of Banjul. ak saay-saay yu bon yi ak activistes yi human rights so called yi ñoom ñoo ñëw together de dañoo change affaire age 22 bi waaye nguur gi ñu ne yëgu ko sax bu muy teb again yàpp Adama Baro yàpp réew mi yàpp nit ñi la you know time ba ni ngeen a yàpp nit ñi nag ca beginning ba nga xam ne nit ñi xamuñu woon li xew nit ñi eewu nañ léegi ah, nit ñi eewu nañ lu bu baax a ci seen affaire xam nañ ne nonsense ngeen laa jaay di fi jaay loo leen ci dugal loo xam ne di jaay doole goo xam ne sax yelloowu leen ko te nit ñi dañ leen paree jëngu fi mu nekk 28 June bi ngeen waroon a dem ne da ngeen a ceeñi aaj bi ni ko doon keroog da ngeen doon taaliban ñun parce que Gambie yëpp a taxawoo ne du fi am yéen doo leen fi nekk ne da ngeen a ron dëkk bi jos ni ngeen a def nonsense ngeen a def you know waaye loolu loolu man dama foog ne ba tey jii. government bi nit ñi teg waxuñ ci dara man lijjanti na ba ay ministre sax war nañ ma ne loolu du fi am you know waaye loolu dañ ko waroon a dañ ko waroon a dëgëral it's true ñoom ñu ne ci seen recommandation yi TRRC bi la nekka pour ñu change aaj beeg yeneen ak yeneen seen recommandation bi yéen seen recommandation bi génnaagut génnaagut be baro di ko gis ba government bi di ko gis bañ ko yóbbu National Assembly bañ ko ratify ba yooyu yëpp. ngeen ne da ngeen a ñëw di implement li ngeen xam ne yéen nee na toog rek ne xale ñu def ko di jaay lan foofu la dictatorship am yéen dictatorship never again bi ngeen a wax it's worse than what you are doing never again kenn du fi ñëw di dictate yeah that's worse than yéen da ngeen a tooñ di dictate parce que loolu du seen mandate ba pare soo leen jógee pour def ko da ngeen war a tàgg nguur gi waaye ngeen ne da ngeen naa jóg waaye dëkk bi dañ leen pare woon naa jëngu jëngu yu métti you leen bàyyi woon ëllëg ñu ñëw ak beneen bu ees kaay leen ñu defaat lii kaay leen ñu defaat la li just like liñ doon wax xam naa lañ doon test seen idea bi ne bés bu seen seen seen seen recommendation bu génnee whether Gambia government laaj dañ ko or not foog ñu implement ko loolu lañ doon test foog naa ne loolu la ñoo jéem a test ni loolu du fi am let me tell you that seen recommendation bi si amee ñëpp dañ expect ne ak évidence bi ñu xam ne yéen ñëpp dangeen ngeen ko da ngeen ko da nax nit ñi fen loon nit ñi tapale bañ koo jaar ci dégga ñu ngi fa taaj yellowuñ ko taaj ñu taaj leen fa xamuñ dara munuñ seen liggéey qualifié ñun dañ expect ne seen recommendation bi su leen ko génnee baro daf koo sànni ci biti lum ci implement du dëgg du fen la te nit ñi duñ ko nangu oh yes man loolu laa leen a wax you know ba Batambedu di jël fifty million dalasis ci ñu ne asset si Yaya Jammeh bi biñ ko jaayee loo xam ne waru ko woon a jaay kenn joxu ko order bi ñu jaay loolu tracteur yi ñu jëloon ci nit ñi you béykat yi jaay leen you këram yi motoom yi nangu ko jaay ko kër yi jëndaloon mbokkaam yi sax ñu dëkk fa ngeen génnee mbokkaam yi jaay ko jël xaalis yi dama ci seen poos di ko séddoo ba pare jël ngeen ne boobu ngeen jël fifti million dem jox ko victime centre ak pour ñu ñu ñu faj victim si loolu léegi xam nañ ne dégg naa fifti million yooyu eleven million lañ leen jël ñii ñu fayal leen ñu ne dem leen fajo ji fële dem leen fajo ji ñoo xam ne fajoon nañ leen sax bu dem leen fajo ji fële dem leen fajo ji fële pare thirty nine million bi yëpp ñu ne ñu ngi ko denc ci benn account who knows lu tax expliqué nu leen loolu. léegi sax ngeen ne da ngeen soxlawaat extra fifty million te waxagu leen sax fifty million bale fo leen ko dugal ba mu set eleven million ngeen waa te xam naa ne sax indi wuñu records tu soo nii lañ ko sendee nii lañ ko sendee sere because óor na ma ne xosla si sóor nii di tëb di dal ay activiste la ñëpp foofu la ñoo utee la ñoo dundee fa ñoo lekkee because munuñ dara munuñoo am liggéey xamuñ dara you know te loolu lañ bëgg a continuer ay victime sent yi léeg non sense yi léeg ay kijeeraak yooyu yëpp dégg brook dégg naa brook ba sumay ñoo gënoon ñu kenn gënoon naa brook ñooñu mënuñoo am liggéey fenn ci àdduna laaj leen fan lañ musal liggéey ci àdduna ñun mun nañoo ñëw dem dem leen Amérique fekk suñu record ñun dañ doon liggéey lu ñor biir Amérique biñ fee jógee after bi ma nekkee ami commande laa wax de in fact waxuma loolu sax nekk naa ticca nekk naa teacher ci dëkk bi qualified teacher damaa tase suma students yi benn tey Latrikunda school um, Pakalending secondary technical school dañ ma ne teacher yaa jàngaloo lii teacher yaa ma jàngaloo loolu soo def naa loo xam ne dama daan tic yoo xam ne dimbalaa xale yu bari bind naa ay books yoo xam ne benn tey suma damaa tey ah riid naa sa book bi dimbale miit mi on a Conakry fi mu nekk ñi ko riid di toog di dal naan dégg si ñoo xam ne nii la ñoo baaxee in sax. maa ngi am gaay yu baax ñoom euh, ñoo xam ne you know um, ñoom Mr Tamba ñoom Souleymane Badji ñu naan ko euh, Papia mu ngi Bronx New York Ibrahima Tamba moom itam mu ngi Bronx New York ñoom ñëpp a ngi jënd a lot books fi mu nekk ne dañ koo distribute pour seen school si in fact Thursday bi sax su neexee yàlla damaa war a dem. Euh, sifo pour def leen fa présentation am na ñoo xam ne am na koo xam ne daf ma ne dina ma yónnee xaalis ma jënd lu ma bugg a rek tasaare ko school bu ko neex rek ci dëkk bi because moom dafa bugg a dimbale moom daf ko jënda jabaramang ko riit famille tëñ ñëpp a ci kontaan mu ne mu ne ma dex gi amuñ ay internet amuñ ay dara amuñ ay naka foon yeeg yooyu yooyu su leen ko bug bu neex la ñoom ñu ko enjoy I did that man mun naa take care of sama Joking for dem America. bi ma nekk Amérique gars yaay soo waaye waaye dañ leen appoint man biñ maa appoint United Nations two years ew fa two years sax 2015 lañ ma fa 2015 16 it was over man la America. 1999 in fact 2001 last start frontline industries industrial company boo have ne li ma leen doon electrical structural and mechanical maintenance. You, you don't have the maintenance of this, all right, mechanical, structural, and electrical grid of the United States of America. So, company bi ñoo New York, Pennsylvania and New Jersey. di liggéey you were the di dem repair pumps see the cool down nuclear reactors I stand in Island, Brooklyn. You go there. Huge submersible pumps. You get near I the kind of thousands and thousands of gallons per minute just to cool down major reactors. We can do something for ourselves. Yen munulen dara talk fi degana I useless people laying one in the streets. Say negiri danul léegi ñu ngaa samp seen léegi di defar di jënd ay moto yëpp ci xaalisi victime centers si lañ ko jëlee moo tax bëgguñoo ub seen gémmiñ yi all along it's like eh, luwa bi lii luwa bi la ñu bari sa jànguñ luwa xamuñ dara ci affaire luwa waaye ne rek ne gouvernement bi waaw yaaya kii naka right yi nit ñi gouvernement ñoom seen right la gouvernement jox leen xaalis ñu mën a victime si ci dëkk bi waaw aaj bi ñu ne ñu bëggoon a toon aaj bi def ko lan ñu ne mémorial lan <laughs> mémorial aaj pour lan ñu ne victime si Yaya ñan ñu doon attaque dëkk bi di rey nit ñi ñi bugg rey dëkk bi ne dañoo coup d'état Yaya Jammeh ñu loru ci ñu ñu la ñu def seen pictures ñoom jaga jaay ñoom jaaja ñaas ak ñeneen ak ñeneen ñoom Lamin Sané yooyu foofu la yabaate am why don't you ngeen dem victime si saa daaw yi waxuñ few xam nga yéen a ngi wax ay few people over eight hundred to one thousand close to one thousand Gambians ñu ngi leen suul ci bàmmeeli Sere eh, eh, bàmmeeli Banjul ci mass grave seen tur yi benn tey xam nañ ko ñoom ñoom ña nga Sàlla ñoom Jeng Femi Jeng ñoom Madi Konte ñoom Ibou Fall ñoom Alaaji Amadou Diallo boole leen ci ñoom ñëpp seen nataal yi na ne ñii la fi sénégalais yi rey 20 1981 um, uh, su leen ko ci boole woon billahi kon liste boobu ak nataal yooyu duñ xëcc ci aaj bi sax ba fan la ñaawteef boobu fan la ñaawteef fan la rawee foofu ba pare ngeen boole ci nag nataali Harouna Jaata waaye déedéet naa fexa rek loolu yëpp pour tapas nit ñi rek ne ñu naxaril Gambien si. waaw Yaya Jammeh dafa bonoon li ma leen a wax five loo leen wax so soo leen compter five ne ñii dañ bañ a Jammeh óoral ne ne twenty five a nga taaw fële ne dañ ko bugga parce que moom daf daan dimbale nit ñi dafa yërëmoon nit ñi ci dëkk bi daf daan yóbbu scholarship di yóbbu ñoo xam ne suñoo xalaat ne dinañ dem màkka mu yónni leen màkka di leen may ay kër you su cost of living bi high, mu invest cost of living bi ñëw down not for him Why for the country of course you know te loolu eh, yelloo woon na ko illegal toon lim doon def yëpp benn to ci let's be realistic yéen ay ñëw fii di wax nonsense yi di ko wax naan waa Yaya Jammeh lii Yaya Jammeh la lee waaye lim doon def ci dëkk bi yëpp du jaadu la waaw ñu bëri dee nañ after bi mu demee because of naxar because of confusion because da ngeen ñëw replace système bi in a way boo xam ne you know munuñ koo understand lañ ci doon jëriñoo yëpp ngeen yàq ko ba pare indi lu leen loo xam ne daf leen a jàppale waa jël fifty million dollars si jox leen ko ñu ne ana xaalis eleven lañ ko fajee anay beneen xaalis bi thirty nine million bi kenn mënul la naa wax fan la dugga ba tey léegi ñu ne nañ leen joxaat beneen fifty te xaalis yi yaaya jàmme lañ jël sax ne xaalis këram yi ñu jaay te waruñ koo jaay ak tracteur foofu lañ jëlee fifty million boobu jox ko gaay yooyu yëpp dañ waroon a xaar ba report TRRC bi pare su pare ñu ne lii le ñu recommend kii la ñoo repéya kale la ñoo jox leen ngeen soog a joxe xaalis soo waaye ba jëlee xaalis bi dugal ko ci roon jox ko ñi ne xëy na damaa nax ya Adama Barrow rek ne ko lii pour la moom itam xëy na mu toppaleen rek. you know ca la ñu juuj gaa ji start 39 million boobu dañ ko waroon a audit waaye ba pare jógoñ foofu ñu ne léegi nag dañ indiwaat beneen 50 million balaa end of June bi ay on li xam yaaya ja kii naka Adama Barrow Sumaye ñi ko wër finance minister mi dofuñ jinne jàppul leen ñu ne dañoo waat feneen mi joxaat ko xos si they are broke these people mun ne la luñ seen liggéey seen boppa bés boo stoppé di leen jox xaalis rek ñu yëy xeer ci mbedd ak seen dóor ca si ak li ñoo wax yëpp nonsense la waa soo amee li fi mun ngaa nekk human rights activist o mun ngaa nekk rights activist soo amee loo xam ne daf la concerne ye rights activist yi duñ jeex ci àdduna si waaye ñooñu dañ munal seen boppa duñ sikkandeku ci ne government di leen jox lu ñoo lekka ba pare ñu naan right activist la right activist right activist bu nekk am nga ko am na right activist yoo xam ne sax dañ ne kenn waruta Leka, Ken waruta rey Nak oo yàppa kenn waru koo lekka ne rab yi kenn waru leen a lekka right activist lañ Greenpeace you know activist lañ am na ñoo xam ne sax dañ ne garab yi ñoo dog nii di ko yaaxa seen activist lañ ne waruñ koo waruta am you know ah, naka la tuddaati xaj yeeg béy yeeg xar yi ñoo sànni ni ci mbedd mi ñuy sonn am na ñoo xam ne loolu rek ay seen activiste loolu nit di ko def ba pare de nguur dañ la war a fay pour nga def loolu mooy ñii rek nonsense people yi dañ réeb kii dañ réeb kale dañ réeb kale te yow mënuloo am évidence dañ ko réeb nga am exculpatory evidence buy wane ne du dëgg réeb boobu amut ngeen ne kenn du ko wax soo gisee ñun. man maa Ibou Diallo kenn du ñu indi ci ti TRRC bi parce que ñun xam nañ ne sukkandiku wuñ ci dëgga wax naa ko te naa ko waxaat kenn du la jox illegal order nga def ko nga ne kala ko jox moom moo responsible ak yow mi ko def islaay nga ne demal euh, euh, islaay nga demal nit demal jomp ci teen bi order la demal jomp ci teen bi kooku dina jomp ci teen bi demal dugga ci sóobul ci teen bi order la dina sóobul ci teen koo koo mënuta ne demal sóobu ci teen bi ci oda munu bu bañ koo def soo ko ne demal rey nit te amul fuñ ko dafa war a bañ su ko defee rek moom la loolu moom military law la military law la waaw te yow ay jong la si ne ñoom ñëpp dañoo wax ne sax tumbul tàmba kii naka Maliya Mungu Moussa Jammeh moo leen doon jox oo ne yaaya Jammeh ne lu jógee fii lii la leen yaaya jàmme mosu leen koo kool mu wax leen ne jox naa order amuñ fenn fuñ ko binda soo ñëwee sax gis nga di only serious open court boo xam ne àdduna si yëpp dañ ko doon seet nga xam ne dañ doon prosecute nit ñi ci ko mooy Nuremberg trial bi 1945 ba 1946 Nuremberg trial after second world war biñ jëlee you know military military leaders yi um, time boobu Hitler dee na military general sam yi politician sam yi economist sam yi even some of the doctors yi nga xam ne te most of the thing mooy holocaust bi liñ doon def ci holocaust bi six million Jews yi ñu doon rey te loolu dañ ko bind ci këyit ne lii la Germany agree ne loi la dañ war a rey all Jews in in in in in Europe dañ ko bind def ko loi mu nekk kayit goo xam ne ñooñu yëpp ko sign ba pare di ko def ne lii. dañ war a rey juu si nekk Europe yëpp ba pare in fact Reinhard Heydrich sax dafa waxoon ne pour 1942 birthday present pour Hitler daf ko bugg a wan plain clean slate ne ko rey nañ juu si nekk Europe yëpp moo tax rey bi métti woon 1930 1941 ba 1942 ci la rey bi gën a ci waaye moom 1942 lañ ko rey ci moppaam moom Reinhard Heydrich yi yàlla di wa def rek suñ ko reyutoon ñaawteef gi dina passé six million juus parce que kooku dafa soxoroon maa si Essa Faal gii la rek ak ñoom na baa tàmbee du rek suñ gisee ñaawteef dinañ ko def na seen poos yi fees rek waaw gom loo xam ne is nonsense rek soo yooyu la te loolu loolu loolu du du du sampa so ñoom dañ waroon a xaar ba seen report bi pare ñu joxe evidence bi maa ngi dégg si naka jiite mu ngi wax ne waaw TRRC bi def nañ liggéey ban liggéey bu rafet lañ def ci dëkk bi defuñ liggéey bu rafet defuñ fi ay fen ak tappale PPP government yu bon yiñ def ci dëkk bi kenn bëgg koo wax you know Mr MC Cham bi ñoo wax ne moo ñëw ne Sirif Dibba dégg xam ngeen ne waxul dëgg kooku Hitler lañ ko daan ooyee ya naka génni leemaar la daan am as ministre di door nit ñi di dugg ci seen kër yi amee fetel kenn du ko ñeme ñëw wax dara ci dëkk bi léegi mooy ñëw di yaram yaaraam lu ñu nekk léegi nit ku baax waaye yaaya jàmme ministre bis déggee yaaya jàmme ministre am di jéem a jaay réew ci dëkk bi amut parce que nekk daf la jox sa place ngay def sa liggéey you know bu njëkk ba fële soo nekkee ministre yaa ngi am sa jos léegi ministère yi ñu nga samp ay taax dakaar moto yu rafet seen yi lale it's not ne añaan la déedéet wax dëgg la loolu dafa bon ministre waruta nekkal ku am alal ministre ministre responsabilité la du wërsëg responsabilité la du wërsëg te responsabilité soo ko waree carré out ni nga ko carré out doo ci ut alal doo ci ut tur da def ni mu ni waaye nekk fii di sàcc ale réew mi time yi jos PPP ministre boo gis mu ngi dawal time boobu benn bu tooy xeeb benn time boobu mooy léegi naka mooy léegi intercooler yi nga gis ni léegi ay it's not ne dama lifin du dara nag du dara soo demee Amérique soo demee Amérique liggéeyal sa boppa ma la ngay liggéeyal government saa de waaye nga liggéeyal sa boppa nga ñaxa mun nga am moto bi gën a rafet Amérique parce que dañ la ko jox crédit ngay koo fay moto yi yoo dawal nii dañ leen ko waroon a jox crédit government dañ ko waroon a jox crédit di ko jox ngeen ku ci génn ñu delloo ko waaye déedéet dañoo nekk fii ñu leen ko jox di leen jox fuel ñuy def leen neex yooyu yëpp dafa rong li ñoo lakk ci fuel ci nonsense yoo xam ne du officiel du du jeex yooyu yëpp su stoboon bi nekk ci dëkk bi dinañu doon dim dinañu yooyu fu sore sore sore sore oh yes man loolu dama koo wax. so leen abee ne li lële li ma wax so ko yelloo businessman so buggee ut alal dama nekk businessman nga jënd say moto jënd sa intercooler jënd sa way do nekk government ne yo businessman yi sa yalé na gëna am alal yalé na gëna a tedda loolu du liggéey government lolu sàcca government bi la waaw time boobu loolu fa soo nekkee ministre so nekkee department head yeah demal gpmb director Euh, coopérative yi la nekka lii la ku nekkaa ngi am multiple kër multiple moto takka jabar fële takka as di loolooy loolooy bi de di yàqa lekk nag bi seen biir yi em du ma dem ba ca digg diabetes ne la tël nag ngay fatar fatari li nga doon am yegg yu dee bàyyi ko fi ooyee oh loolooy am so these are the things yoo xam ne we have to be very careful because you know réew kenn du ko doxalee ni nit ñi eewu nañ léegi àdduna fi dafa soppeeku maa ngi dégg George Biden Joe Biden raada Joe Biden président America mu ngi wane ne economy world bi including economy America bi na meloon balaa penn bi du ko mënati mukk is different àdduna si dafa change àdduna si ni meloon balaa pandemic bi di am nii dafa change completely xaw kanamu sa toog di foog ne Gambia dinañ toog ñaari at doo leen fi gis benn toores ci dëkk bi. nga dem ci tourist market bi doo gis dara fa laay dem every day su may train you know doo fa gis dara di restaurant yi kipas si hôtel yi yëpp a ngi tëj seen borom yi sax ñu bëri seen borom yi dee nañ because of frustration àdduna soppeeku ngeen bugg a continuer di same thing ay padiem ne lii loolu du fi amati nit ñi xam nañ liy xew te léegi nit ñi doo sàcca léegi foo sàcca ñu génnee kayit gi wan ko àdduna si ñu xam ko yooyu yëpp daf ñu waroon a dimbale ñu régler dëkk bi waaye déedéet ñu ngi fi rek naan nonsense lii waa fi ma tëjee nag tey mooy affaire yi ECOWAS bu are going am nañ seen 59th ordinary session of ECOWAS Economic Community of West African ye CAFO CAFO Ghanian bi seen président bi moom ci caaman bi ñu ne dogal nañ ci ne léegi économique dañoo seetaat seen mandir pour make sure ne élection yi Gambie bi doxal nañ ko ci yoon <laughs> doxal nañ ko ci yoon xaw ma loolu naka la ko économique di defee économique dañ am mun-mun boobu élection yi Gambie économique pour na ñoom ñoo fee war a nekk pour make sure doxal nañ ko ci yoon. ana économique ak élection yi Gambie doxal ko ci yoon I don't get it so ba ñu ngi wani tam ne after election bi presidential election bi fi mu nekk d'accord nañ ne dinañ fi am international police boo xam ne Côte d'Ivoire muy muy muy Ivory Coast Sénégal ak Togo xam naa ne Ghana sax dañ ko ci boole waaye duñ ci sori. ñooñu dinañ ñëw nekk ECOMAG dañ koo change into a police form boo xam ne ñu ne European Union bi ñoo leen war a support te man dama ne du European Union France laa doon rek parce que France fi ñu jàpp ci Gambie bi pare wuñ koo bàyyi jaral na leen lu nekk nag Macky Sall jaral na ko lu lekk wala du am na lu ko doy sëg moom Sénégal waaye fi mu nekk mu ngay jàppal waa lii lañ d'accord man xaw ma lii saa naka lañ ko d'accordé so man li ma wax mooy ne dafa mel ni ñun suñ security sector reform gars yi wax ne ñu ne security sector reform bi du pare ren du pare déwén te mun naa jël ten years balaa moo pare soo ñun liñ ñoo wax rek mooy ne international forces yi nekk ci dëkk bi ne dañ ñoo polisal dëkk bi dina continuer after suñu élection bi ñu président bi fee ñëw mun nañ fee nekk for the next ten years. te benteyin suñ national assembly bi tooguñ pour dibeet ko pour wax lan lañ féeta ak lan lañ koo ratifié bente kenn waxu loolu man loolu daf ma jaaxal de loolu jaaxal na ma lool fuñ ko jëmale waaye su dee loolu la ñun suñ police yi suñ foo si si kenn gënu leen a ay you know man xam naa suñ police yi nekkoon international community bi booy yu ay bente ñu ngi fa sax ñaareel ba suñ jeexalee seen mandate rek suñ jeexalee seen tour of duty seen tour suñ ko jeexalee rek suñ applyé pour ñu pour ñu extra eh, naka la turaati jox leen additional time extension suñ leen pour extension dañ leen ko dee approval because dañoo def liggéey bu rafet soo léegi su dee loolu la kay European Union bi pare dañoo pompe xaalis bu bëri bu pour foreign forces si ñëw ne ni ñun ñoo ñëw polisal suñ dëkk bi. kon léegi ka leen ñu leen amalgamé ak suñ police suñ jugalu suñ police yëpp suñ police yu baax yi nga xam ne xam nañ li ñoo def ñu jaxase leen naa ñoom ñu leen a fay ci xaalis bi parce que lii utukaay alal la léegi sénégalais yi jógee fële ivoirien si jógee fële ak lan naka la tuddaati togolis yi ñëw fii ne ñu leen a fay xaalis Ivory Coast ban dëkk koo gën a jaxasoo ci dëkk bi ci àdduna si su dee police la ñoo ñoo gën a soxla police. su dee police la ko Conakry moo gën a soxla police fii in fact meeting bi ñu doon am sax virtual lañ ko def télé télé euh, dañ ko doo dañ ko dañ def ay dañ ko def by internet internet la ñoo toog nekk nekkul ne dañ meeting de ñoom ñoo toog internet la ñu ñu waxtaan ko dëkk bi appiyawul rek mooy Mali xam nañ ne Mali daf leen coog léegi ñu ngi wax ne waa Mali ñu ngi leen a wan ne in 2022 dañ war a xaan over civilian government waaye ñu ngi neexal Mali. lu tax yónneewu leen ay police biir Mali oo ay soldaar biir Mali waaye ñun da ñu bëgg a miinal loo xam ne bés boo leen fi génnee mu tàcc suñu loxo because loolu laa leen naa wax foreign forces ci dëkka 1981 ba 1999 sénégalais yi ñoo nekkoon fii ñun ñëpp ñu dépend ci foreign force bañ génnee dañ ci teg ñaata four five years ñu change government bi soldat yi tey boobu sax li li li tax sama waste time mooy woon affaire yi mooy ECOMOG su ECOMOG amoon 89 boobu 90 91 nguur jawara bi dinañ ko doon coup d'état man mun naa laa loolu maa ngi woon ci camp bi xam naa li doon xalaat soo li leen yàggal ci dëkk bi li yàqoon réew mi mooy ne dañ miinal Gambia bi almost about eight years yoo xam ne ñu nga sëkkandikoo ci foreign forces. ba pare gannaaw gi itam ñu indi Nigerian forces ci dëkk bi yooyu yëpp foog ne dañoo naxaate ñoo gën a muus nit ñi waaye ci seen ron lañ leen tégalee ñoom ñëpp di same thing doo leen fi indi foreign forces ci dëkk bi di leen fay xaalis bu dul jee ñuy def ñaaw téef di biiral xale yu jigéen yi di tëbba xaalis bi de ko yóbbu ci seen réew yi as if ne ñun suñ police yi mënuñoo def liggéey boobu su European Union bi bëggoon lu baax ci dëkk bi xaalis bi ñoo jox ñii suñ ko fayoon suñ sécurité bi billahi dinañ def ten times better job parce que ñoom fii lañ dëkka kon dañoo ne am nañ stake ci dëkk bi te ñun dëkk su amee jàmm ñun la amal jàmm su amee xaay ñun la xaay xaalis bi ngeen naa fay ñi foreign policy yi war a ñëw nii fay leen ko suñ police ngeen seetaan duñ def liggéey bu rafet ci dëkk bi waaye da ngeen naa nekk fii di nasaxal suñ police yi suñ sécurité yi benn luñ expectu xew duñ ci mun dara duñ ci mun soo leen foogee ne foreign forces yi nekk ci dëkk bi mun nañoo prevent any crisis da ngeen a ndax seen boppa bi Malien si jógee ne doyal ni sëg ci seen gouvernement bi five thousand French troops ñu ngi Mali ñoo xam ne ñoo gën a équipe Malien fo armée bi ñu leen gën a am fetal ñu leen gën a am gànnaay ñu leen gën a am loo xalaat. over 10,000 United Nations peacekeepers sang fa close to that ñu ngi am seen gànnaay am waaye nit ñi faale wuñ leen parce que gis nañ ne dëkk bi doon suux kaale ñu jóg looloo indi military government bi nga gis ni biir Mali français yi dañ ci def dara bu yàggul ni ñu leen a daxasa pour ñu génn ñëpp di kontaan ne dañoo génn because ñaaw leen ñaaw dañ leen doon ñaawal littéralement di jël seen alal gi seen góol gi di ko yóbbu yooyu dañoo jihadis yi ñoom français yi léegi tubaab bi ñoo leen a jox xaalis ne leen dem leen attaque soo leen attaqué ñu ne leen waaw yéen nag ñun suñ fi jógee jihadis yi dañoo nangu réew mi toogal seen maliens si dinañ régler seen affaire jihadis yi dinañ leen teg xëy na sax jihadis yi li ñu leen weeroo dinañ dinañ ko dinañ ko dinañ ci juboo it's like Boko Haram li ñoo wax ni biir Nigeria Nigeria soo gisee Boko Haram mënuñoo stop in fact dañoo gën a am doole mooy Nigeria ay saasaay rek a fa nekk di jël alali réew mi di ko séddoo di jël di ko yóbbu bitim réew di ko defal seen njaboot yi mu tax gars yi mer ne li duñ ci nangu soo jëlee alali réew mi jël ay lawyers ak fenkat tapale politiciens ne kaa leen ñun ñoo fi war a toog di yàq réew mi ñu dinañ jóg against it let me tell you that dafa am so man li ma wax mooy ne ECOWAS. liñ taxawal ci dëkk bi ne dañ fee nekk ba faw suñ politiciens yi dañ ko war a wax ne ñoom ñoo ñoo ñëw monitoral ñu suñ élection bi xaw ma naka lañ koo monitoré te jéemu ñoo seet sax lana xapoon 2016 bañ riig élection si bi am ñaari result te loolu woon naa taar réew mi loolu lañ waroon naa seet seetuñ ko soo bu ñu fi gëteen you man dama na government bi frank with the Gambians liñ accept liñ signé ak ECOWAS in fact décision boobu sax loolu dañ ko waroon a jaar ci National Assembly bi waaye loolu yëpp ñu ngi leen a bypass benn politicien waxu ko soo yéen 2021 after election bi xam ngeen ne neex leen naxari leen ECOWAS dañ fa pare indi police forces yoo xam ne Sénégal dañoo jógee Ivory Coast dañoo jógee ak Togo ak ñu ne Ghana pour ñu ñëw polisal ñu dëkk bi. asif ne ñun mënuñoo police suñ bopp ñun ñoo ñàkk fayda ñun ñoo useless ñun ñoo ñàkk a xam li ñoo def loolu waruta am ci benn dëkk waaye sëriñ bi waruta am ci benn dëkk benn leader waru koo nangu ci àdduna si benn leader waru koo nangu te kenn du ko nangu Gambia rek lañ koo nangu loo because of ñan suñ saasaay kolosaar yi human rights yi nga xam ne xamuñ li ñoo def xamuñ li ñoo wax TRRC nonsense yi xamuñ li ñoo def ñi lay fi nekkoon tay mi jawara bi ñoo indi Nigerian si li leen kenn xamut li ñoo def sole leen naa wax ne lii du dëgg ñu naan ay noppil sa gémmiñ gi because tey a ngi neex xelaatu leen ëllëg waaye ëllëg yëpp mun naa korombul ci seen loxo I can tell you this you can take it to the bank te you know dinañ continuer di leen ee continuer di leen wax lii happen di leen wane leen lëkk you know um, fi ñu jubloo dafa am yu bëri li fi Adama Barrow man ngi laa ñaan you know maa ngi dégg nag ne ñu ne mu ngi am na liste boo xam ne ñu ko ñu ko wër mu ngi plan ne bés buñ ko after election dafa wiit ñu yëpp ci gouvernement am bi parce que ñooñu dimbale wuñ dëkk bi dañoo yàq gouvernement am gis nga waa ma ma wax la benn mistake bu Yaya Jammeh defoon the same li nga wax loolu la Yaya Jammeh daan wax mu ne am na ay samba booy nit ñu bon ñu ko wër ñoo xam ne. su after election bi daf leen a génnee ci seen place yi including ay ambassadeur sax yooyu waaye guess what fam ko doon waxee lan ka ko doon yam ko doon wax ñoom ñoo génnee list ba mu doon wax ñu yóbbu ko ci ambassadeur si leeg ministre yi léegi war ko gis nga Yaya Jammeh daf leen a génne ñooñu ñoo daaneel Yaya Jammeh 2016 ñoom ñoo jàppale foreign countries si ñoom ñoo jàppale ñu riig élection si ñoom Jeffrey Smith ñoo ñëpp dañ bokkoon ci rigin bi pour ñu rig election si ba daaneel Yaya Jammeh liste bi if it is true ne dégg naa liste boo xam ne ñu ne mu ngi ko am bind na ni ñii after election daf leen a génne billahi ñooñu yëg nañ ko te ñu ngi walk against getting you down Adama Barrow whether you know it or not ñu ngi walk against getting you down te soo moytu they will get you down te jële gën a closal la nag di la wane ñoo la gën a bëgg a ñoo la gën a bañ di la mis advice di la lii waroon na nañoo yëg ñu waroon na nañoo yëg balaa ñoo dem standard bay announce li ne on the 28 lii luñ yàgg a plané dañoo def aj 22 changes boobu waroon nañ ko yëg wax la ko waaye kenn waxu la ko ba coow li jóg ci lañ xam ne lii seytaane laa jur ñu ne kaleen ñu koo yëgal yes yu bëri ñu ngi koo def ci dëkk bi ci seen ron xamuloo ko bëgguñ la koo wax parce que pour yàqal la la. so yow léegi nga waroon naa the house cleaning organise sa boppa wane ne man maa nekk in charge of this réew in fact TRRC Bisa sax gise nga gisee Essa Faal ñu koo taasul ci mbedda bi bongo maan yi di ko toppa daan dafa bëgg nekk président ci nga leen hey Ceesay jarul ngeen bind report sax close that te mun nga justify internationally I can tell you this mun nga koo justify sa gars yi laa liggéeyal mun nañ koo justify suñ ko munut rek nga xam ne ci saasaay yi lañ bokk soo foofu laay am ak yow tey bi ëllëg su ne yàlla thank you very much wasalaam